Chicken. Merci de nous rester fidèles, amis internautes, vous qui avez choisi de nous suivre sur la chaîne des grands événements VIP People TV, comme son nom l'indique, s'informer juste c'est vrai. nee naa leen abonné bu leen fàtte bës cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo en exclusivité ñu en ce mardi 24 septembre 2024 indi leen numéro actu du jour xool li gën a fës ci xibaar ci bés bi ñu daal koy saytu ko segg ko faram-fàcce ko indi ko jox ko sur la chaîne des grands événements VIP People TV fi ñu koy en ce 24 septembre 2024. dañuy dem fële seet ji li nga xamante ni mooy intercoalition bi nga xamante ni moo juddu ci diggante lii di APR ak PDS kii nga xamante ni Madame Moy l'honorable député Ibrahima Diop moom daal dafa rejeter jaarale ko question de principe bi nga xamante ne daal moo retiré wu jëm ci li nga élection législative li nga bénit déclaration bi ñu marqué jaarale ko daal ci profonde indignation l'idi l'honorable député Ibrahima Diop moo daal di exprimer lépp loo xamante ay désaccord la Madame àndul Ben, yoon ci li nga xamante ni bénit décision boo xamante parti démocratique sénégalais di PDS Daldi dina pour allier woog li nga alliance pour la république di APR ko a ci dirigé ko par ki nga le qui alliance trahison.

héritage bi nga xamante ni kii di maître Abdoulaye Wade di fondateur du parti bi di PDS daf leen ko légué dafa dem ci ay sacrifice yu constitué daal ñu jëmale ko daal ci suivre li nga xamante ni mooy parti bi moom mii di l'honorable député Ibrahima Diop dafa insister ci valeur principe yi nga xamante ni moo war a guider bépp action politique ba noppi mu daal di réaffirmer lépp loo xamante ni daal politique la dafa war a doon loo xamante ni benn domaine nit la yoo xamante ni yu digne ànd ci benn objectif boo xamante ni dafa demeurer intérêt général mais suñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni daal mooy benn homme politique boo xamante ni dafa sukkandiku ci benn parti bi nga xamante ni daf war a dévier jëmale ko daal ci benn ligne boo xamante ni lii di directrice bi jaarale ko ci parti démocratique sénégalais. amul ben yon li nga xamante dal moy mémoire bu courte dal di faté li nga xamante dal moy enfer bi len Macky Sall dundaloo jëmale ko dal ci régime ginnaw bi nga xamante ni après élection présidentielle du 2012 mi ngi ko notamment li di accusation yi ñu porté woon ci ancien président ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Wade jëmale ko dal ci ay difficultés yo xamante ni ci dernière rencontre yi nga xamante ni muy arrestation emprisonnement ki nga xamante ni mooy Karim Wade jëmale lepp ci suufu régime ki di Macky Sall li di CREI ginnaw bi nga xamante ni Macky Sall mom ak partem dañu souligner dal que ginnaw bi ñu défé fukki at ak ñaar dal di combattre lépp lo xamante dal dañ ko qualifier comme régime dictatorial prédateur diar ko dal ci li nga xamante moy mooy public Ibrahima Diop mi ngi affirmé amul ben yon bo xamante mom meuna compromettre bi di combat dal di allié wul yi nga xamante longtemps dañ yag dénoncer li nga xamante dal ñom lañuy def ginnaw bi ñuy liggéey ak APR mom ci bopam dafa ñëw pour renier dal di liggéey ak parti bi nga xamante ni mooy APR di parti Macky Sall suñu sukkandikoo ci moom amul dara loo xamante ni da koy négocier ci ay principe ginnaaw bi ñuy jàkkaarloog li nga xamante ni mooy situation bi moom mii l'honorable député Ibrahima Diop bu parti démocratique sénégalais dafa annoncé li nga xamante ne daal mooy décision jëmale ko daal ci déposé li nga xamante ne mooy candidature am ci élection législative du 17 novembre mu préféré daal rester fidèle jëmale ko daal ci ay conviction ginnaaw daal lépp nangu la ko mais tout sauf Macky ak li nga xamante ne mooy parti am di APR muy benn prise de position boo xamante ne dafa marqué benn tourment jaarle ko ci carrière politique am moom mi di l'honorable député Ibrahima Diop lépp lu mu privilégié mooy fidélité valeur plutôt que ñuy chercher li nga xamante ne daal mooy ay compromis politique jëmale ko daal ci lépp loo xamante ne maanaam dañ leen yàgg combattre